أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci tur yàlla subhaanahu wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dooli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñu ngi woon ak yéen ci istuwaaru yusuf alayhi salaam sunu darsu tey mooy taawilu ruya mooy mu firil gaa yi gént gi وإلى هنا يبلغ يوسف أقصى الغاية من الدرس الذي ألقاه neena ci fii fi nu tomb fi nu toll foofu la Yusuf alayhi salaatu wa salaam jëlee décision nag di firil gaa yi gént ga gént gi nga xam ne ñaari mbokkam yooyu ñu tëjandoo woon ci kaso bi ñoo ñëw ci moom ne ko ñun de dañoo gént bëgg nga jàppale ñu ci waaye moom Yusuf tëbul rek firi gént gi waaye dafa am fa mu jaar ak ñoom mu daal di tàmbali waar leen xemmem loo leen tawxiid yëngal leen pour bu leen firilee gént gi ba pare danañ mën a nekk ay jullit yu gëm yàlla nee na wa min samma fa huwa yu awilu lahuma ar ruya fi nihaati dars ginnaaw bu mu leen jàngalee ba pare ba waar leen fi mu mujjee ak ñoom mooy mu daal leen di firil gént gi li yazidahuma siqa fi qawlihi kullihi wa taalluqan bihi ngir mu yokk leen confiance ngir mu wëlbati seeni xel ak seeni gis-gis ñu aj ko ci yàlla subhanahu wa taala foofu la leen waxee ci saaru yusuf ay 40 mu ne leen yaa saahibay sijin amma ahadukuma fa yasqi rabbahu xamra wa amma al axaru fa yuslabu fa taakulu tayru min rasihi yéen sama mbokk yi ñu tëjaale ci kaso bi kenn ci yéen ñaar danañ ko libéré ci ay fan yu néew mu continuer di jox patron sàngara muy naan amma keneen ki danañ ko jàpp christifié ko ci benn bant bu gudd ñu daaj ko ci ba mu ne këng daaj loxo yi takk tànk yi daaj ko ay picc ñëw takk ci bopp bi di cof yuur gi pour lekk ko seen gént gi lool waaye waxu leen yéen ñaar ñi kan lañ ciy rey def leen firil noonu gént gi rek daa leen koy bàyyi lu tax loolu tamit dañ koy bëgg yenn saa yi ci kiy jàngale ci boroom xam-xam bul gis lor di jublu si nit nga wax ko ko direct man naa wax ko mbooloo mi rek ku mën a daw daw ku mën a rëcc rëcc waaye bul ñëw rek adressé kenn ki ne ko musibaa ngi ñëw day këpp sa kaw kon day sonal waa ji Yuusuf xam na ñoom ñaar ñi kan lañ ciy rey xam na ñoom ñaar kan lañ ciy libéré waaye daf leen ne yéen ñaar daal am na ci koo xam ne dina continuer dinañ ko libéré continuer mu continuer di liggéeyal patron am na ci koo xam ne nag moom dana génn waaye dañ koy rey mu ne wa ama al axar allazi raa ala raasihi al xubza ki nga xam ne moom la waxoon ne man dama yenu woon benn pañe pañe bi am mburu ay pitax wala ay picc wala ay céeli di ci tag di ci lekk kooku la ko ne yow dañ lay rey wala raxmi min annahu fassara lahuma arruya illa annahu lam yuhaddid lahuma man allazi sa yuslab nee na firil na leen waaye waxu ci ñoom ñaar kan la ñuy rey wa man illazi sa yan ju waxul tamit yéen ñaar kan mooy rëcc loolu dafa bokk ci njëriñu borom xam-xam yi li ñu jàngale fa labisa fi sijni bida sinin nee na yusuf yusuf sax na resté na ci biir kaso ba loolu ñu naan bidi sinin nangami at bidaa borom xam-xam yi dañuy wax ma bayna salaasa ila asra saa yoo déggee bidaa ci làkku arab mooy ñett la tàmbalee jëm fukk li ëpp nag ci wa aksarul mufassiruuna ñi ëpp ci ñi firi baatu bidaa ñoom lan lañ wax mooy mu ngi tàmbalee ñett ba juróom-ñaar loolu mooy bida bidaa sinin mooy daggitu nangam ñu ne ñett la ba fukk mais borom xam-xam yi ëpp ci mufassiruun yi dañu ne juróom-ñaar la kon Yuusuf continué na ca kaso ba juróom-ñaari at ñu tëj wa qaala lilladi zanna annahu naajin minhuma uzkurni inda rabbika fa ansaahu shaytan zikra rabbihi fa labisa fi sijini bida sinin li waral Yuusuf nekk ci kaso bi juróom-ñaari at alxuraan moo ñuy jàngal ne keroog ba leen Yuusuf waxee yéen ñaar am na ku ciy rëcc am na koo xam ne bu génnee dañ koy rey Yuusuf dafa ne ki ñuy kii rëcc soo demee ba yegg ci sa patron te mooy buur bi nang ma fàttaliku nang ko ne am na benn waaye bu tudd Yuusuf bu ñu tëj ci biir kaso bi te deful dara dañ koo tooñoon nga fàttali ko ko amaana boo ko fàttalee sama tur ah dina jox gaa yi yor kaso bi walla justice bi ñu daan may libéré génne ma ah ndeke loolu mu def kenn du ko def lu tax loolu mu def kenn du ko def mooy sunu borom moo nu ko nettali ci même saar suratu Yusuf aya 42. mu ne wa qaala lillazi zanna annahu naajin minhuma yusuf wax na kenn ci ñoom ñaar ñooñu mu yaakaar ne mooy rëcc nee na ko boo demee uzkurni inda rabbika fàttalikuma ci sa boroom sa patron yusuf dafa fàtte yàlla dem di ut ndimbal ci nit loolu la ko yàlla pinee mu nekk juróom-ñaari at ci kaso mu ne qaala alxasan qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rahimallahu axi yusuf lawla kalimatun qa qaalaha maa labisa fi sijini yonent yàlla Muhammad nee na yal na yàlla yërëm sama mbokk mi yusuf su dul woon ne baat bii mu wax kon du sax ci kaso bi juróom-ñaari at ban baat la mooy uzkur ni inda rabbika boo demee ci sa patron nga fàttaliku ma au lieu mu fàttaliku ci yàlla muy dem ci nit gis ngeen gis ngeen yonent yi bàkkaar yi leen yàlla di pine est-ce que li bàkkaar la ah ci ñun ci ñun du dara waaye ñoom dañoo am martaba bu rëy ñoom waruñu waruñu taqale ci ay nit lii mooy bàkkaaru yonent bu dee yonent dina am bàkkaar yu mel nii la Moussa wooroon na ba ngoon gémmiñ gi xeeñ mu socc yàlla mu ne ko lu tax mu ne sama gémmiñ yàlla mu ne ko yokk ci yeneen fukki fan gis nga xoolal ñun ñoom lii la leen yàlla di pinee mu ne bu Yusuf waxul woon lii du sax ci kaso bi waaye li mu wax loolu moo tax yàlla pine ko mu ne nahnu iza nazala bina amrun fazi'na ila nnaas ñun bu ñu amee problème ñun fu ñuy daw dem ci nit ñi nahnu iza nazala alayna amrun fazi'na ila nnas ñun bu ñu amee problème dañuy daw di làqatu ci nit ñi amma yonent yi ñoom bu ñu amee problème ci yàlla lañ war a nëbbatu wa qaala malik ibnu dinar moom tamit kenn la ci boroom xam-xam yi mu ne lamma qaala yusuf li saaqi ba yusuf waxee ki rëcc nga xam ne mooy dem di jox patron sàngara muy naan ba ko Yusuf waxee boo demee nga fàttaliku ma ci sa boroom qiila lahu Yusuf axasta min duni ñu ne ko yow yusuf danga fàttaliku keneen bàyyi yàlla axasta min duni wakiilan danga jàpp keneen ndimbal bàyyi yàlla comme nag danga ut keneen danga ut feneen ndimbal bàyyi yàlla la uti lan na xabsak dinaa la yàggal ci kaso bi yàlla wax ko loolu rek fa baka yusuf yusuf jooy ndeysaan wa qaala ya rabbi ansa qalbi kasaratul bala mu ne yàlla sama problème yi ñoo bëri ba sama xol bi mënatul contrôler waaye wax dëgg yàlla ba léegi fi ma nekkoon rek laa nekk dama laa gëm ba léegi mais sama problème yee bëri rek yow yàlla mu jooy ndeysaan mu wax loolu yàlla mu ne sama problème yee bëri fa qultu ma qultu li ma wax ma wax ko waaye ba léegi ni ma la gëmee woon laa la gëmee ndeysaan lamma alima yusuf alayhi salaatu wasalaam anna saaqi sa yanju yusuf ba mu xamee ne kii jox buur bi sàngara dana rëcc talaba minhu an yuzakkira qissatahu mu ne ko boo demee ci wetu buur bi benn bis sax da nga koy indil kaas bopp nga fàttali ko sama problème laallahu yuxallisu li min azulmi amaana mu daal di may rëccal ci tooñ giñ ma tooñ ndax man bañ may dugal kaso dañ maa tooñ dugal ma kaso lakin arrajul ma annahu waada yusuf waa ji ne ko amul benn problème loolu ci samay dossier yi may régler bu ma génnee la su ma génnee sama première rencontre ak buur bi rek loolu laa koy wax mu génn yàlla rocc affaire bi yàlla da ko rocc ci bopp bi waa ji fàtte ndeysaan wa aasa yusuf alayhi salaatu wassalaam mu daal di sax ci kaso bi juróom-ñaari at an labisa yusuf fi sijini bida sinin mooy juróom-ñaari at wa kaana hadha al amru lool nag min ikraamillahi li nabiyihi yusuf lool nag ndimbal la bu yàlla def yàlla bàyyi bàyyi ko ci kaso bi juróom-ñaari at daal di fàtteloo waa ji mbir ma loolu ndimbalu yàlla la ci kaw yusuf loolu du métit mais ndimbal la pour yàlla rectifier yusuf xam ne warul xalaat keneen ku dul yàlla moo tax yàlla defal ko lool fa innahu lam yajal qadaau xaajati ala yadi abdin min ibadi yàlla deful problème yusuf mu réglé wu ci loxo benn jaam mais lox problème mu yusuf kan moo ko mujj a réglé mooy allahu subhanahu wa taala te ni mu ko réglé mi ngi ñëw wala bi sababin yarbitu bi abdin yàlla réglewul problème mu yusuf ci jaam yàlla yëkkatiwul jaam xamal ko mbiru yusuf mu dem réglé ji ko amma sunu borom subhanahu wa taala moo rek le mbiru yuusuf ak boppam benn borom xam-xam buñ naan kaabul ahbar nee na yàlla dafa wax yu yusuf ne ko yusuf yusuf ne ko labbayka yow sama borom mu ne ko yusuf xanaa du maa la bind mu ne ah kay yaa ma bind kay yusuf ku lay wërsëgal mu ne ko yow yàlla Yuusuf ku tax sa baay bëgg la mu ne ko yow yàlla mu ne ko Yuusuf bi ñu la dugalee ci teen bi ku la musal mu ne ko yow yàlla mu ne ko Yuusuf bi ñu la jaayee jaam ku la ci génne mu ne ko yow yàlla mu ne ko lu tax nga may fàtte di dem ci keneen lu tax nga may fàtte nga naan keneen na la fàttaliku ci kanamu buur bi xanaa man dama fay nekkatut allahu akbar mbokk yi yàlla bu ñu toppee rek ñun ñëpp lay duma bu nu yàlla toppee bu fekkee lii yu mel nii lanu yàlla di àttee ñun ñëpp yàlla dina teg yar sunu kaw c'est parce que iman moo war a toll foo xam ne doomu aadama xelam dootul dem ci mbindeef comme Ibrahima ni mu ko defee woon Ibrahima keroog bi ñu boyalee safara si di ko ci préparé sànni Jibril ñëw na ko luy sa problème mu ne ko awma benn problème mu ne ko ah fii ñu la nar a dugal nag xanaa bëggoo ku la fi xettali mu ne ko da nga ma bëgg da nga ma bëgg a dimbali mu ne ko yow awma ci yow importance yàlla rek yàlla mi ngi may seetaan yàlla yàlla mi mi ma bind mi tax ñu may def lii du ma seetaan loolu moo tax yonent yi ñoom yàlla du leen jéggal tarfatal ayn mu ne Yusuf yàlla dimbalee ko la loolu pour xelam ak xolam bañ a aju ci doomu aadama fa ibadallahi almuxlasin mu ne jaamu yàlla yi sellal yanbaghi an yataallaqa qulubuhum billahi waxda jaami yàlla yi sellal li war ci ñoom mooy seeni xol ñu koy aj ci yàlla bañ koo aj ci mbindeef wala ci leneen fa ibadallahi almuxlasin yambagi an yataallaqa qulubahum billahi wahdahu képp kuy sellal ci ñun sa xol ak sa xel waroo koo aj ci mbindeef wala leneen lu dul yàlla fa huwa alqadiru ala tafriji alhumum yàlla moo mën a dindi ay problème yàlla moo mën a wuññi njàqare ay tiis ak ay nattu yàlla rek moo ko mën a dindi keneen mënu ko dindi yàgg naa leen wax fii benn waaye ngi nii bu tëdd guddi di nelaw mu gént ñu ne ko demal nga régler ji problème mu diw diw jógal mu jóg ñu ne ko jëlal sa oto bi mu jël ñu ne ko feesal ko moom fees del ak dund nga dem joxe ko diw mu jóg yeew arrière otoom bi def ci dund ba mu fees mu dem ba kër kooku ñu wax mu fëgg waa ji ubbi mu ne ko yaa moom lii ñu wàcce ba mu jeex takk mu ne waa ji boo amee problème rek sama carte visite ngi nii nag ma woot téléphone waa ji ne ko lu ma koy doye mu ne ko pour nga woo ma ma régler sa problème mu ne ko ki la telee nelaw ba nga indil ma lii kooku laay waxal yóbbu sa carte visite sa carte bi soxlawuma ko yóbbu ko ki la teree nelaw ba nga ñëw indil itam est ce que maa la ko wax mu ne ko déedéet na jeex na yàlla rek laay ñaan du ma la ñaan mukk xam nga loolu tolluwaay la moo tax doomu aadama buy sellal warul yëg xelam ak xoolam ci ko dul yàlla ñun nag suñu problème mooy su ñu amee problème balaa ñuy ñëw ci yàlla dañuy daw a daw daw daw daw ba ñu xam ne kenn mënatu ci dara ñun xaaral ma ñaan kenn suñu du am problème rek dem jàpp julli ñaar raak sujjóot ñaan yàlla ne yàlla sama problème bi yow rek laa yow rek yaa ma koy réglé keneen du ko réglé ñun duñ def loolu. ñun bu ñu amee jafe-jafe ak ay coono wala ay njàqare wala feebar wala tiis dañuy wër a wër a wër ba mu ne kucc ñu xam ne kenn mënu ci dara. ñu naa aara nag léegi ma yóbbu ko ci yàlla waaw yàlla fss waaw loolu lañ naan la médecin après dootu amati njëriñ parce que yàlla dina xam ne yow tële moo tax nga ñëw ci moom mais boo mënoon bu gaa yi mënoon doo ñëw ci yàlla loolu nag su fekkee jaam bi foofu la toll jaam boobu amul benn tarfatal ay ni iman ci ngëm yàlla subhanahu wa taala sunu borom nee na am man yujibul mututarra iza daahu wa yaksifu suu wa yaj'alakum xulafaa al ard a ilahun ma allah qalilum qalilan ma tazkurun sunu borom nee na am man yujibul muttarra kan mooy wuyu ko am problème kan la benn waaye dafa tukki histoire bi ma leen di nettali mu ngi ci benn téere bu tudd baba histoire bi may nettali mu ngi nekk ci téere bu tudd silahul yaqzaan waa ji dafa tukki jël gëléemam def ci commerce am bi yépp muy ñëwaat ci àll bi mu dajeeg benn bandi benn agresseur waa ji ne ko foo jëm mu ne ko dëkk sàngam ne ko ah man tamit def foo laa jëm nan ànd bismillah ñu départ rek waa ji ne ko waayo bandi bi ne ko lu tax ngay jaar nii mu ne ko ne moo gën a gaaw mu ne ko déedéet yow fii moo gën a gaaw yow yow mu ne ko ah man at yëpp su ma ñëwee fii laa jaar mu ne ko fii gaawul fii moo gaaw ndekkee da koo détourné añu ne ko nan dem waaw ñuy dem te nee na ko fii moo gën a gaaw te am na ñax te yoon bi leer na ñax mi bëri na sa gërëm bi dina mën a lekkaale dinañ mën a noppalu fii moo gën a gaaw rek ñu daal di ànd noonu moom mu jàpp ne ndeysaan am naa ku ma wéttali ñuy dox di dox di dox di dox waa ji dox loo xam ne ëpp na duubul lu mu doon dox pour yegg waa ji ne ko yow fii yàgg mu ne ko hé noppi laa wax ndeke da ko doon sànki waa ji dem ba jaag rek gis ay yaxu gëléem yu dee ak ay fas yu dee mu ne waa yow mu ne balaa ma lay bàyyi sa gëléem gi mel nii ñu dox ba jaag ñu gis ay yaxu nit waa ji ne ko yow foo ma jaaral ni mu ne ko balaa ma lay bàyyi sa yax yi mel nii kon nag ma bëgg a rey waaw mu ne ko jëlal gëléem gi ak li ci nekk yëpp nga bàyyi ma ma dem dama am njaboot mu ne ko gëléem gi kay moom dootuñu ko waxaale ak li ci nekk loolu moom maa ko moom moom maa ko moom moom kay moom moom moomatuloo ko maa ko moom ne kay sa problème bi mooy sa bakkan bi ne ko teg maa dimbali mu ne ko munuma ko kon may ma ma julli ñaari ràkka boog après nga rey ma mu ne ko bismillah waaye daal di julli sujjóot sujjóot bu mujj mu ne yaa waduud yaa waduud yaa waduud yaa zil arshil majid yaa faalan lima yurid nasaluka bi wajhika alladi la yuram wa bi mulkika alladi la yudam wa bi nuurika alladi mala arkana arshik an tugisana ya mugisu agisni ya mugisu agisni ya mugisu agisni mu daal di sijo sigi taaye sëlmal waa ji ne ko pare nga julli mu ne waaw waa ji daal di koy yeew bi mu koy yeew ba pare bëgg a génn jaasi ji rek mu dégg ku ne eh bu ko rey kan may wax ak man fii naan bu ko rey mu avancé ci waa ji mu déggaat beneen baat bi gën a jege nee bu ko rey wa kan mooy wax ak man mu avancé waat rek am benn ponkal bu taxaw ci kanamam ne bu ko rey mu siggi rek waa ji biti ko loxo tal mu dali fale moom waa ji dee waa ji jël jaas yi ñëw fekk ki tëdd mu dagg buum yi ci loxo yi dagg buum yi ci tànk bi ne ko sunu borom nee na am man yujibul mutatarra ida daa ana kan mooy wuyu jaam bu amee problème kan la mu ne ko man malaayika laa bi nga ñaanee sa ñaan gi malaaka yi ci asamaan bi yëpp dañoo sujjóot ci kanamu yàlla ku nekk naan yàlla jox ma ndigal ma sauvé waa ji mu ne yàlla daal di may tànn mu ne bi ma yàlla tànnee dama tiit balaa yàlla di ma tànn may échec loo mission yàlla moo tax ca première asamaan ca malaul ala laa waxe première bu ko rey bi falaa ko yuuxoo ne waa ji bu ko rey mu ne ko deuxième bi ci septième asamaan bi laa ko waxee troisième bi fii laa ko waxee léegi léegi sa kanam yàlla nee na kan mooy wuyu ku am problème ku jàq kan moo lay wuyu ku dul yàlla kon nit bu sonnee ku mu war a woo yàlla ñun nag luy sunu mbir bu ñu amee problème ku ñuy woo ay nit ay garab ak ay xeer ak ay bàmmeel ak ñu dee ñoo xam ne ba ñu dee kenn xamul ñaataat la sunu borom nee na amman yujibu lmutatarra ida daahu wa yakshifu suu wa yajalakum xulafaa al ard a ilahum ma allah yàlla nee na ndax man war nañ maa booleeg beneen yàlla a ilahum ma allah ndax am na ku fi yàlla ku dul man mu ne qalilan ma tazkuru néew na lu ngeen di sant yàlla wa hakaza sunu borom nee na naka nii yuhayiu llahu l asba li awliyaihi nii la yàlla di préparé ay sabab ñeel xaritam yi sunu borom bu buggee génne xaritam yi ci ay jafe-jafe ya leen di teg nattu testé seen imaan yi ba mu xam ne dëgër nañ këng mu ñëw génne leen ci alif lam mim ahasiba annas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun saa yoo ne gëm naa yàlla rek bu yeboo nga préparé saa yoo ne gëm nga yàlla bu yeboo nga waaj xam ne nattu yaa ngi ñëw ndax yàlla du jox kenn diplôme te testé wu ko waaw mu ne nii la yàlla di waajalee jaam ñi ay sabab xaritam yi pour génne leen ci ay jafe-jafe lamma arada allahu at tafrij al faraj an yusuf wa ixraajihi min assijin ra'a al maliku misra ru'yan ajib mu ne ba yàlla bëggee génne yusuf ci kaso bi buur ba la nattu mu géntuloo ko gént bu doy waar gént goo xam ne bi ko buur bi géntee dafa tiit yeewu ci biir gént gi fa jama as sahara wal kahana wal mun wal munajjim wal munajjimin buur bi ba mu yeewoo dafa dajale njabarkat yi dajale buxaaba yi dajale gisaanekat yi Sénégal yi mooy seen problème njabar buxaaba gisaane fan yi am na benn jigéen boo xam ne moo fi teg tànk gisaanekat la bu siiw tey sax dégg naa ci rajo bi ñu koy menacé mbëri di ko menacé tey waaye muñ leen rek léegi yàlla noppal leen ci ay ayam gisaanekat muñ leen rek léegi jinne yi war ko ndax ay jinne dong la àndal wa axbarahum bi ma raa fi manaamihi bi mu leen dajalee moom buur bi mu wax leen li mu gis mu laaj leen ne leen damaa bëgg ngeen firil ma leen ngeen firil ma ko léegi rapidement ñoom ñooñu groupe yooyu nga xam ne ay bandi lañ ak ay saay-saay te mooy njabarkat yeeg buxaaba yeeg gisaanekat yi ñu def seen pexe yépp mënuñoo fexe ba trouver solution ci buur bi gént gi mu gént buur bi lan la gént sunu borom moo nu ko nettali wa qaala almaliku inni ara sab'a baqaratin simaanin yaakuluhunna sab'un ijaafun wa sab'a sumbulatin xudarin wa uxra yaabisaat يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون بور بنانا إني أرى من دي جسنا من بور بي سبع بقرات جروم نياري نك ثمان يدوف يبنكل لك بسور يأكلهن دلين لك سبع عجاف جروم نياري يوي بني جسين يخي أكسين يابي سين دري ña loolu loolu kéemtaan la benn jigéen démb dafa ñëw sama kër ay booru takkusaan mu ne ma damaa gént benn gént ma la doon laaj ndax mën nga ma ko firil ma ne ko ban gént la mu ne ma damaa gént sama ma feebar ñu may faj ñu xotti sama biir bi fii côté bii non dafa ne ma sama biir bi fii côté bi da doon yëngatu mu yëngatu ba ci yàgg ñu xotti ko ñu génn ci benn jën ak ñaari tànku ginaar loolu moom a tiitloo loolu lan la allahu akbar mu ne benn jën lañ ci génne ak ñaari tànku ginaar buur bi it dafa gént juróom ñaari nag yu ponkal génn ci benn dex di lekk ci ñax mi juróom ñaar yu wow koŋ ba ñuy gis seeni yax mu tàmpe ci seeni der dem lekk juróom ñaar yee te amul trace ci ñoom mu tiit yeewu tëddaat mu gént wa uxra yaabisaat wa sab'u sumbulaatin xudar mu géntaat juróom ñaari mbool mbool mboq xudarin yu vert rafet wa uxra yaabisaat mu gént yeneen juróom ñaari yu wow juróom ñaari mboq yu tooy xepp ak juróom ñaar yi wow koŋ lii la gént moom buur bi xamul lii lan la mu ne yaa ayyuhal mala'u aftuuni fi ruyaaya in kuntum li ruya taabirun yéen mbooloo mi bu fekkente ne da ngeen di jaay yéen a fi dàq firi gént bismillah sama gént ngi nii firil ma leen ko gaa yi daal di dajale borom xam-xam yi jabarkat yi gisaanekat yi seetkat yi ñoom ñëpp mënuñ ci dara fan lañ mujjee ak moom ñu ne ko lii daal mënuñ ci dara ñun ñu ngi lay yëgal ne daal lii lott nañ ci fa ajaza al malau min haashiyatihi wa min alkahana an taawiliha bu xaaba ya lott nañ gisaanekat yi lott nañ njabarkat yi lott nañ kenn mënu ci dara fuñ mu jéeg moom ñu ne ko ah lii de adaraasu ahlaamin la adaraasu ahlaamin mooy lan lii daay lii daal caaxaanu léeb la rek caaxaanu léeb lii daal da nga ko gis noonu rek benn benn ngelaw la rek lu doon jàll quoi ci sa ci sa nelaw yi du dara mu ne leen déedéet lii kay dara la yéen ko xamul rek man kay lii du ma ko bàyyi lu dul ma am ku ma ko firil yéen kay da ngeen naan xamu leen ko mais comme xamuñu ñu bugg koo firee neneen def nañ seen pexe yëpp mënuñ ci dara lan lañ mu jox buur bi wa ma nahnu bi taawilil ahlaami bi aalimin ñun nag mënuñu firi gént tey da ngay gis ci àddina bi ci dëkk bi ay nit di firi gént te gént du n'importe qui moo ko war a firi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na firi gént léeg-léeg mu julli fajar ba pare mu jaakaarloog sahaaba yi laaj leen ku ci gént ñu wax ko mu firil leen ko léeg-léeg mu ne leen ku ci gént gént gu ragallu wëlbët ngay wëlbateeku boo yeewoo mu ne dafa tournel sa ginnaaw nii nga wax auzu billahi min ashaytan rajim trois fois nga tëfli ko ci sa mbagg mu ne nga changé position bi nga tëddaatoon mu ne gént gi bu dee day lore du la dal bu dee lu neex la mu ne boo yeewoo nga wax ko ci sa xarit yi koo gën a bëgg mais gis nga fii moom rajo yi sax dañuy firi gént a rajo am na ñoo xam ñu ngi toog ñor seen téléphone boo leen téléphoné ba pare ñu firil la ko waaw loolu musiba weesuwul loolu musiba weesuwu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na boo géntee gént gu neex wax ko sa xarit boo géntee lu raal loo tiital waxal aawuzu billahi min asheytan rajim trois fois nga tufli ko ci sa sa càmmoñ mu ne fa inda zalika bi dëkk bi yëpp tëlee ñëpp ne kong kenn mënu ci dara te affaire bi jaaxal na buur bi tere na koo lekk tere na koo naan fa zakkara annaaji minhuma ka rëccoon ka yusuf rëccaloon waxaloon ko ne yow yaay rëcc waa ji daal di fàttaliku ne ndeke am na benn ponkal ma nga ca kaso ba moom ku mën a firi gént la allazi wasaahu yusuf bi annahu bi an yu yuzakkirahu inda rabbihi fa nasiyahu ila xiinin waa ji waxoon yusuf waxoon ne boo demee ci sa patron bi nag ma fàttaliku waa ji moo fàttaliku yusuf léegi ne am na ku nekk ci kaso bi mën na ko mu daal dem ci yusuf mu daal di koy nettali la mu gis la mu dégg ci buur bi buur bi daal waa ji yusuf daal koy firil waa ji ñëw ci buur bi ne ko man mën naa firi gént gi moom it buur bi ne ko du yow du yow ndax affaire bi mu ngi fi bëgg a def ay at yaa ngi fii ci pale bi ma nekk fi firiloo ma ko wax ma ku la waxal mbir mi mu ne ko benn waaye bu tudd yuusuf mu ngi ci kaso bi ñu daal di jëli yuusuf ñu daal di koy indi ci kanamu buur bi ñu laaj ko mbir mi lu muy firi mu tàmbali di leen ko wax loolu moo tax sunu borom subhanahu wa taala nettali ñu ba tey ci même saar bi aaya 45 mu ne wa qaala alladi naja minhuma wa dakara baada umma ana unabbi'ukum bi ta'wilihi waa ji nga xam ne moo rëccoon moo ñëw ci buur bi ne ko man de léegi mun naa leen firil gént gi fa arsiluni yónni leen ma su ngeen ma yónnee rek bu ma ñëwee ma daal di koy firi mu dem wax ko Yusuf Yusuf wax ko ko ne ko buur bi lii la gént waa ji daal di dellu nag ndeysaan ca buur ba nettali ko histoire bi buur bi ne ko déedéet dem leen ngeen indi ji ko waaye bu ñu indee Yusuf dafa profité daan ne balaa may tontu question bi ba pare Yusuf ci mbaa moom ci méthode bi muy wootee ci yoonu yàlla chaque jour bu ñu ko laajee benn laaj balaa muy tontu day waaraate ba pare doog a tontu. biñ ñëwee di ko firiloo gént gi dafa ne bala ma koy firi wax leen ma jigéen ñooñu daggoon seen loxo yi ak jabaru buur bi lan laa leen defoon ba ngeen tëj ma juróom-ñaari at ci kaso bi. ndeke ndeysaan buur bi moom yëgul woon sax ne dañoo tëj Yusuf premier ministre bi moo ko jëloon décision bi daal di koy tëj loolu moo tax gis ngeen gouvernement yu bëri dina ci xam président bi du ko yëg muy musiba nag loola daloon fi sunu président yu bëree bëri la wax ñu ne yëguma ko yëguma ko di am na ci koo xam ne dégg naa bi ñu ko indilee mbuusu café juróomi dërëm ak mbuusu meew juróom da doon jooy ni lii am na ci Sénégal yaa ne ko fukki at yëpp sénégalais yi li la ñuy dunde mbuusu café juróomi dërëm mbuusu meew juróomi dërëm mu ne ah toog di jooy ni ñi waxuñu ma dëgg gis ngeen fekk c'est trop tard fekk balaa ngay yëg musiba bi xew na fekk day fekk nit ñi mere nañ la ba saye mënatoo def lu la nit ñi bëggee dootoo wax di mën wóolu la baaxul moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla bu nammalee buur jàmm da koy may entourage bu baax yàlla bu nammalee buur jàmm da koy may mbooloo mu baax mu ko wër bu nammalee buur musiba entourage bi day bon te buur bu daanu rek say mbokk say entourage ñoo la daaneel parce que ñooy def loo xamante ne ñëpp dañ lay bañ te buñ la bañee sayee kenn dootu la bëggati ndeysaan yusuf alayhi salaatu wasalaam mu ne leen mu leen di firil gént gi qaala mu ne leen tazra'uuna sab'a sinin da'ban fama hasadtum fazaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun buur loolu xam nga lu muy tekk sa nag yooyu nga gént mu ne ah mu ne da ngeen di bay juróom-ñaari at ñaata nag la woon juróom-ñaari nag yu ponkal mu ne ko juróom-ñaari at la yu ngeen di bay juróom-ñaari at yi nawet bi yëpp day baax lépp lu ngeen bay bu ñoree ngeen na ngeen ko góob ngeen bàyyi ko ci mbool mi bu leen ko dindi xam ngeen mbool ah ah na ngeen ko bàyyi ci ci góob bi na ngeen ko ci bàyyi ah mooy li nekk ci kawam bu leen ko muri mooy bant bi mu ngoog mooy na ngeen ko bàyyi ci biir bu ko kenn muri comme booy lakk mboq xam nga dafa am der yu nekk ci kaw moom ngay xëcc mu ba mu yëpp dañ nga doog ko dugal ci biir xal yi mooy bu leen ko dindi na ngeen ko bàyyi noonu juróom-ñaari at yi lu ngeen bàyyi rek noonu ngeen koy dindee daal di koy bàyyi noonu denc ko ci ay place ba mu nekk juróom-ñaari at li ngeen ciy dindi daal mooy tuuti lu ngeen war a lekk ngeen bàyyi noonu illa qalilan mimma taakuluun mu ne summa taati min baadi dalika sab'un sidaadun yaakulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuxsinuun da ngeen xam ne juróom-ñaari at yooyu bu jeexee yan moo ñëwoon après juróom-ñaari nag yu yooyu li muy tekki mooy juróom-ñaari at ya ciy tegu na nag ya mel la ñuy mel dafay wow koŋ lépp ay wow suuf si ndox bi ñëw dex yi day ŋeer dara du am taw dootul taw léegi kon lan ngeen di def mooy la ngeen dencoon ngeen commencé di ci génn tuuti tuuti di lekk mu ne summa yaati min baadi dalika aamun yugaasu yugaasu nnaasu wa fiihi yaasurun ndeysaan après ata ngi ñëw boo xam ne nit ñi danañ sonn di nga gis ku jóge dëkk ak dëkk di uti lekk su boobaa nag la ngeen dencoon loolu ngeen di génne di ci dund Yusuf bi mu firee lii ba pare buur bi dafa jaaxle daane ku mel nii naka lañ koy tëjee ci kaso te gis nga lu mel nii daa bari ci àddina bi benn boroom xam-xam mu ngi may nettali nee na Égypte dañ fa doon defar benn benn yoon boo xamante ne gaal yi ñoo fa war a jaar ak bato yi ci biir Égypte mooy canal de Suez bi ñu koy gas mu ne ingénieurs yi États-Unis yi dañoo ñëw def lu nekk mënuñ ci dara xamuñ nuñ koy def lu ñu teg rek ndox mi dindi ko mu ne ñu jëm jëli ingénieur russe yi ñu ñëw une semaine mënuñoo def dara ci ingénieur russe yi ñu ne ko am na benn waay égyptien la mu ngi fii ci kaso bi kooku rek lañ xam ne mën na ko ci frère musulman yi la bokk bu président bi mu ne ah Nasser mu ne ah ñu ne ko waaw mu ne mu ngi fii ci kaso bi ñu dem jëliwaa ji ne ko dañ la soxla génne ko mu génn lan la ñu ne ko dafa am benn liggéey bu ñu bëgg nga nga defaral ñu ko mu ne bismillah ñu yóbbu ko ba ci place bi ne ko dañu bëgg nangam ak nangam ak nangam nangam fii ñu baare ndox mi ndox mi mënul jaar pour ñu mën a liggéey fii mu ne amul problème indi leen ordinateur ñu indi teg mu ne def leen nangam ak nangam ñu teg six jours mu defar affaire bi kooku après bi mu ko defar defaree lu ñu ko waroon def ah bi mu ko defaree pare ñu tourné waat loxo yi daal di koy takkaat takkaat tànk yi dugal ko ci oto delloo ko ci kaso bi gis ngeen te ñooñu ñoom ñooñu ñu mel noonu mooy fan yi rek fan yi ki ñu ñoom ki ñu bëggoon def président de la république ci kaso bi la génne militaire yi ne du bokk parce que ci kaso bi lañ ko génne ñoo xam ne dañ leen jël di leen tëj kaso te ab defuñu dara seet actuellement ni président assemblée nationale bi kaso la génne nekk président assemblée ñoo xam ne xool duñ def dara lu dul dañ naan yàlla nee na yonent nee na ñu jël tëj kaso ay tet yoo xam ne mën nañoo defar adduna xoola ku mel noonu ñëw liggéeyal réewam lu toll noonu xanaa ñu baal ko bokk ñu daal di koy delloo ci biir kaso bi tëjaat ko Youssouf moom bi mu waxee lii buur bi ba pare mu defe ne ku mel ni warul nekk kaso kii moom fa qaala al maliku ituni bihi indil leen ma ko indil leen ma waaj ñu dem indi ko fa lamma jaahu ar rasul bi ndaw li buur bi yónni ñëwee ci yuusuf ci biir kaso bi di ko fekk wax ko information bi ne ko buur bi firil nañ ko firil la ko firil naa ko gént bi mais nee na nañ la indi da ko ne irji ila rabbik fasalhu ma baalu niswa allati qataana aydiyahunna inna rabbi bi kaydihinna alim dellul ci sa pré- ci sa président boo demee nga ne ko jigéen ñooñu dajaloo woon ci saal ba dagg seen loxo yi ak jabaru premier ministre bi loolu mu defoon jigéen ñooñu luy seen mbir ah sinon du ma génn de du ma wuyu si moo tax boo nekkee ci dëgg jàpp ci rek lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg dëgg bi day feeñ ak lu mu métti métti métti dëgg bi day feeñ ndaw li bi mu delloo ci premier ministre ci buur bi ndaa di koy wax xabaar bi ne ko Yusuf nee na ñëwul de na nga ko wax jigéen ñi taxoon ngeen tëj ko lan mooy mbiru jigéen ñooñu mu dajale jigéen ñi qaala maa xatbukunna iz raawattunna yuusufu an nafsihi waaw yéen luy seen mbir keroog ba ngeen nammee fexe yuusuf lu bon lan moo xewoon ndeysaan jabaru premier ministre bi fekk premier ministre bi dee na jabar jee ci des bi buur bi laajee mbir mi nag xamuñu ni ñuy def ñu ne qul na ñu ne xaasha lillahi ma alimna alayhi min suu sell ñeel na yàlla ñun xamuñu ci yuusuf lu bon ndeysaan arab yi dañuy wax ne alxaqu ma shahidahu l aada dëgg mooy lu noon yi seede waa amee ay noon ñoo xam ne bëgguñu la dañ laa bañ ñu taxaw seedee la dëgg loolu mooy dëgg parce que bu fekkee ñi wax dëgg bi say xarit lañ wala say mbokk nit ñi lu ñuy wax waaye noon yi buñ ñëwee daal di wax dëgg bi damay liir démb hadisul ifk bi ñu fenele yaay Aysa ne dafa njaaloo benn musta mustasriq moom ngeen koy wax de orientaliste nan ngeen koy wax mooy ñooñu nekk ay tubaab di bind ci lislaam di yàq mu daal di bind ci waxtaan boobu hadisul ifk mu ne su ma fàttalikoo yonent bi yonent la wala du yonent rek mu ne sama xel bu demee ci histoire boobu rek ma xam ne kii yonent la yàlla ko yónni gaa yi daal di koy posé question ne ko lu tax mu ne ndax histoire bi mu amee ñu tumaale yaay ay sa njaaloo alxuraan toog na weer wàccul nee na yonent bi boobu amoon na pouvoir mënoon na régler affaire bi parce que moom moo yor lépp su waxee saxaaba yi def mënoon na wax saxaaba yi rey leen ñi ko def rey leen ñi ko wax na nga leen yeew indil ma leen fii ñëpp dagg leen seen baat nee na yonent bi dafa toog di xaar alxuraan wàcc pour régler affaire bi mu ne lii mooy wane ne yonent la te alxuraan toog na weer wàccul yonent bi toog weer di muñ ba alxuraan wàcc régler affaire bi nee na loolu mooy wane ne yonent bi yonent la daawul jël décision boppam mais yàlla moo koy jox mbir yi te xoola ki wax lii lan la yéefir yéefir moo seedeel lii yonent yàlla muhammad ana julli di incha allah mbokk yi fi la ñuy yem tey darsu tey bi ba àllarba bii di ñëw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu